fukki njiiti réew ak njiiti gouvernement ñoom danañ egsi fii ci France ci altine gi Macky Sall moom nag dana egsi fii ci France ngir participer si ab some boo xam ne kii di njiitu France di Emmanuel Macron moom moo ko convoqué jëmmale ko si ni ñuy suqalee koom-koom réew Afrique yi nga xam ne jamono ji li di jàngoro Covid ji def leen a xaw a faagaagal ndaje moom nag di am ci diggante njiiti réewu Afrique yi ak gouvernement wu France ak li nga xam mooy Fonds monétaire international banque mondiale moom du nekk loo xam ne dana yomb lool si njiiti réew yooyu ndax fii ci France association yi nga xam ne ñoo lëkkalee ndawi Afrique yi ak mouvement yi nga xam ne ñoom dañuy xeex ak nootal ak ñàkk si diggante àdduna bi ak li nga xam ne mooy ñenn si diaspora yi nekk ay ñoom kat mobilisé nañ taxaw ne lii di ndaje moom dañ ko fas yéene perturbé maanaam daal koy jaxase waaye nag si ay xibaar yu ñu xamal la te bàyyi ci ambassade bi nekkee fii ambassadeur bi woote woon na ab ndaje jëmale ko ci service de sécurité yi ak consul Amady Diallo ak ambassadeur Maguette Seye ngir waxtaane li nga xam ne mooy ñëw Macky Sall ak yenn militant yu yi nekk fii ci France ci xibaar yi jot xamal ne sax na ñoom ne militant APR yi duñu masa nangu jafe-jafe yi nga xam ne moom la Macky Sall amoon mu dundoon ko si mu jëm gi ñëw ci at atum 2018 mettoon lool mu àndoon ay yuuxoo bañ xëppoon li nga xam ne mooy fariñ si kaw otom bi ak si équipe de télévision bi nga xam ne ñoom la àndoon ci fàtte fàttali ndaje moom nag ki ko convoqué di président Emmanuel Macron te ŋàññi ko lool te bàyyi ko fii ci diaspora Afrique bi ñoom li tax ñu koy ñaawal sax mooy diaspora boobu nee na France ak ñooñu nga xam ne ñooy bailleurs de fonds yi ñoom ñoo gën a ñàkkal gën a pauvre li nga xam ne mooy Afrique rawatina di protéger ñi nga xam ne mooy yenn nguur yi nga xam ne amuñu ak démocratie amuñu ak ànd ak askan wi te ñii di France ak bailleurs de fonds yi di leen làq.